Abonnez-vous sur la chaîne Equivox TV pour de nouveaux contenus exclusifs de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Euh, euh, bi ñu kàddu dalal suñu gan yi Euh, ci li nga xam ne monsieur le maire wax na ko rek parce que man dama bokk ci ñu considérer ni que c'est le maire de Dakar légitime et légal même si on a on on, on le lui a enlevé dinaa ci dellusi si euh, gannaaw kàddoom ñu dellu siwaat rek ci ñaar wala ñetti dimension yi mu waxee xam lu tuuti liñ ci wax mooy commencé par di ko euh, masaw di bu baax a baax a baax naam ñun ay boroom gëm-gëm lañu ak diine goo bokk te nit bu am gëm-gëm dafay gëm épreuve te jàpp nañ ni lii la woon waaye man man tamit dama bokk ci ñi nga xam ne gannaaw épreuve de manière générale wala ci biir épreuve boobu dinaa toujours xool lan moo ci yàlla ak lan moo ci nit parce que dafa am loo xam ne léeg ñu askanel ko yàlla te du yàlla ndax yàlla bonul nit nag moo mun a bon soxor am xol bu ñuul waaye yàlla kenn mënu koo askanelu loolu ñun nag dañ di société yoo xam ni dañoo gaaw ci fatalisme fatalisme moo tax defkatu ñaawte fi duñ ko duñ dañ di ko def dañuy wax sax naan sénégalais xamul kuy dóor kuy ku fay ku xamul ku fayu ku dóor lañu xam si ma bëgg a waxee rek mooy naam gëm nañ ni nattu day am mooy gannaaw bu ñaawteef jógee ci nit ba tegu ci yow te sa doole ak sa mën-mën mayul nga xeex ko mayul nga mun ko fi dindi tout de suite ñu ne ah kon nañu delloo mbir mbir mi yëpp ci yàlla kon boobu natt bi day doon plus ah, wàkkirlu ci yàlla que jàpp ni lii yàlla moo ma ko teg ba tax ñu ngi lay masaw parce que li la teg li la dal dañoo jàpp nii ab nit boo xam ne pour jaamu ambition am pour jaamu succès personnel am jàppoon ni lépp lu war a taxaw ci kanamam pour mu mën a bañ a am li mu bëgg war naa wut pexe pour faagagal ko bu ci yàlla amee nit kooku quatre vingt pour cent la ci te nag loolu matut a fàtte la nit nag mun na ne baale na naa ni am na ñoo xam ne ñoo ma gën a xol ñoo ma gën a xol man nit mun na ne baal naa passé naa l'éponge waaye bañ a fàtte parce que fàtte bu amee rek mooy indi ñu mën laa bettaat ci anam yu mel noonu waaw man nag dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ni lii bokk na ci lii tax société bi ñu sàmm ko ba kenn du jël doole gu ko yàlla dénk teg ko ci ndodd nit ñi kenn du yéene moromam lu mu yéenewut boppam ak njabootam mooy léeg-léeg bu ko nit defee it saa su demee ba war ñu won koo mën a wan ni li nga def baaxut ñu won ko ko ba mu gis ko loolu day doon message bu foor ba ëllëg keneen ku koy bi def dina ne ah bàyyil ma xoolaat bu baax kon épreuve la ci anam bi ma ko waxee ñu leen ci sargal bu baax ndax da nga koo nangu suñ nee nangu nag ça veut pas dire que da ngaa avoué mais danga nangu ni euh, lu la ëpp doole dal na sa kaw te tegwul lu dul bëgg a jaamu une ambition te say collaborateur wax naa la ko léegi ci suuf jàmbaar lañu torop ndax nekkoon nag ñoom ñoom fii ci terrain bi di gis li ñu daj lañ ca def yëpp wala lañ ci mënoon yëpp def nañ ko waaye dafa fekk ni euh, dooley nguur du lu yomb dékku kon bu ñu demee ba jàpp ni nguur nga amal affaire te yor na doole goo xam ne yoroo ko nga jël mbir mi dénk ku ëpp doole nguur te kooku mooy yàlla moo tax nga dékku ko avec dignité parce que ñëw naa ñëwaat seet la mais li ma doon njëkk a mooy soo dugg see li ngay njëkk a gis c'est un visage rayonna toujours le sourire boo ñëwee moom moo lay essayé defal sax mas sa seen épreuve yi maa ngi seetaan ak nangam ndàngam te ñun jàppoon nañ ni épreuve bi ma nga foofu noonu loolu nag dafa wane ni euh, borom gëm-gëm nga borom imaan ga te yàlla na ko yàlla yokk ñu war cee jël nag ay enseignement parce que man dama bokk ci ñu gëm ni Khalifa Ababacar Sall su bokkoon ci élection présidentielle bi xaar kanamu élection bi dina doon leneen lu lii loolu laa gëm liggéey la boo xam ne lu ngeen liggéey la ay ati at ndax dooroo politique tey dooroo ko barki démb man sax jàppoon naa ni ay quatre-vingt quatre-vingt-dix ans nga war a am ndax bi ñuy dégg Khalifa Ababacar Sall dafa yàgg yàgg benn yàgg boo xam ne mi ngi mel ni boobu ñu ngi ay collège ak yu mel noonu kon c'est résultat d'un long travail politique ñun ñi yàggul ci politique trop xam nañ ni caaxaan politiqueul politique ak lu mun ci doon sa motivation borom pas-pas dëgg rek mun a politique parce que métti na lool ku ci mun a def nag trente ans trente ba egg foo xam ne ci parcours am ci doxalinam ci défi yi mu relever progressivement lépp indi ko woon na ni kii war naa mun a egg beneen étape bu mu laajee réew benn nit toog rek ne man ku dul man warukoo laaj walla ma faagaagal ko euh, mu am impact bu mu amit ci biir élection bi parce que ñëpp xam nañ ni ku ñu téye may ñu la sa liberté munoo dem fi nga war a dem fépp munoo wax ak ñi nga war a waxal ñëpp donte jàppale nga nit sax peut-être impact bi mu waroon am mën naa am lu ko yées tuuti walla lu bëri rawatina nag bu doon yow yaa taxawal sa bopp nag samp sa ndënd ne candidat la waaye ñu gëm ni euh, destin dafa am destin dafa am te kenn ku nekk ala kulli xaalim nga topp sa destin li yàlla bind ci seen destin waxoon naa ko bi ñu ma ràjjee ci fonction publique ma ne waa ji defe naa dafa ñàkk xam-xam trop parce que wërsëgu nit bu nit demee ba jàpp ni mi ngi ci loxoom ci koo xam ne barki démb yaa ngi doon doxal ci mbedd mi am problème cent franc yow ci sa bopp defe naa ñàkk xel ak ñàkk ñàkk xam-xam weesuwut loolu noonu laa koy waxee ci lay destin kenn ku ne ci ñun mun na am ay trajectoire ay jàdd-jàdd waaye lu yàlla bind ci jëw nit te nga gëm ko di ko sabab ala kulli xaal su àdduna yëpp dajewoon ne lii du am dina am bu ko ci bindu it du am loolu dafa am solo kon euh, ñu ngi leen di félicité bu baax yow ak sa équipe bi yëpp parce que wax naa ko fii euh, am nga ay collaborateur de qualité ay gor parce que ci épreuve rek nga mun a xamee dëgg-dëgg ñan ñoo la entouré te ñi fi teew ñëpp wane nañu loolu ci taxawaay boo xam ne amul sikki sàkk yàlla nag def je crois que ñi ci bëri ci ñoom sànq yaa ngi naan Barthélemy euh, euh, euh, kii nañ la balaa ngay ñëw ban terme ngay utiliser rendre nañ la hommage ma ne la nañu hommage bi à cause du retard parce que parce que wàññi na lépp mais moom mii dañuy waxtaan lu bëree bëri bëri di ay dëkkandoo lu bëree bëri bëri bëri échanger ci lépp doyen Sarr Mëli mën naa ne. lu bëri lu ma xam ci politique agricole gannaaw yàlla moom mii la këram laay dem toog yor sama block wala ma fekk ko fii CNCR CNCR ñuy wax may bind ñuy échanger mu am ci générosité boo xam ne parce que mënoon na ne damay téye li ma am pour sama parti wala pour sama waaye saa yu ma ko woowee ne ko il faut ñu wax ci campagne bi début campagne fin campagne mu ne ma jaaral kër ma dem yor sama bloc note ñu discuter discuter des heures laafiya moom jaratul ñuy wax euh, abami même suñu meetingu campagne présidentielle à Saint-Louis mu nga woon ci tribune bi mun naa ko généraliser ci ñëpp doyen Cheikh Gueye dañuy wax Moussa Taye on est boy beaucoup moins fréquent waaye euh, xam naa ni on a bokk de convergence comme tous les Sanarois d'ailleurs waaw kon am na beaucoup de choses yoo xam ne au niveau des individus te mu li ma wax nii ça peut être pour beaucoup d'autres de mes collaborateurs xam naa ni ñu ngi jëflante ak nit ñi ba tax ñu on est tout à fait ouvert de voir des perspectives ensemble xool qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le pays parce que tamit nag dañoo toll ci benn moment crucial pour ce pays peut ñun suñu difficulté suñu problème ñun Pastef e li tax léeg-léeg yenn coalition yi jafe ci ñun wala impossible moo mooy ñun nekkuñu ci perspective coalition pour jot ci réew wala jot ci ay responsabilité ay post rek pas ça qui nous ñun dañu bëgg lu ñuy def rek bu ko yàlla sottalee mu permettre ce pays la mu jël définitivement le bon départ parce que lii mënul wéy dajale ay nit nag def coalition yomb na trop du am base programmatique du am fii la ñu bëgg a jëm ensemble et cetera mais nañu daje rek parce que il faut ñu xeex waaj il faut ñu lii mais après c'est un éternel recommencement parce que ñi àndoon 2000 balaa 2003 defe naa li ci ëpp tasaaroo nañ loolu moo ñu dalaat ci 2000 euh, 2012 euh, bi. ba tax ñun jàpp nañ ni du ñëpp nag lañuy amal même discours bi du ñëpp lañ naan ubbeeku nañu war nañoo mën a liggéey ensemble waaye je la dis ici ci lu lalu ci waxtaan bu xóot bu wóor boo xam ne ànd dëgg lay doon ci lu war a defar Sénégal ñun am nañu on est dans d'excellentes disposition pour qu'ensemble ñu réfléchir ci lan la ñu war a mën a def pour le Sénégal ci échéance yi war a ñëw yépp nag parce que defe naa euh, le jeu démocratique c'est cela te am nañu beaucoup de d'échéances en perspective qui nous interpellent loolu jàpp naa ni suñu xoolee ni mbir yi doxee ci élection yi passé ku am jàngat dëgg dëgg dëgg ci résultat yi ak ni mu demee nga seetlu ko bu baax en profondeur indépendament de l'absence des uns et des autres absence qui ont pu profiter aux autres qui eux ont pu être candidats directement ou indirectement mais ku am seetlu dëgg-dëgg ak jàngat di nga xam ni léeg-léeg am na ay combinaison yoo xam ne ku ko réussiroon mën na produit lu rëy rëy ci réew mi néew ma ce sera Pastef ak euh, euh, euh, le groupe de Khalifa néew ma ce sera entre Sonko et Khalifa mais dama ne ci kaw waxtaan bokk na ci probabilité yoo xam ne war nañ koo mën a envisager tous pour le bien de ce pays là kon monsieur le maire c'est ay beaucoup de bu que nous vous recevons ici waxoon naa ni euh, suñ ma bàyyi woon dama naan grand frère toogal rek boo noppaloo pare nañ fa jaar bi ngay doog génn commencé gi dama woo Lafia ne ko mais su ma jegoon grand bi dama ko naan bu mu wax bu mu conférence de presse bu mu dajale na dem noppalu defaruwaat dajale nit ñi dajale mbooloo mi et cetera et cetera ba gën a truc bu mu yàkkamti amul obligation wala amul benn dette vis-à-vis de kii que ce soit parce que taxawaay bi ñu amoon ñun li ma leer ba leer mooy su doon ñun la ngeen taxawee lu mel noonu kon loolu taxawaayu góor la taxawaayu principe la du lu di def en se disant que le le monsieur me doit une dette personne ne doit à personne une dette ici daf ma leer ni buroon ñun la ngeen am taxawaay bu ni mel kon si malgré tout vous avez tenu à venir pour nous c'est un euh, suñu mag nga Birame Souleye wax na ko léegi ci at ci parcours politique ci expérience boo bàyyi loolu yëpp malgré tout ne maa ngi déplacé wu dem seeti Ousmane ak Pastef vraiment ñu ngi la ciy sant bu baax di ñaan yàlla euh, daje bi mu doon ci daje yi ñu barkeel mu doon daje boo xam ne dina doon un point buy jur leneen ak leneen pour réew mi euh, dina gën a renforcer diggante yi déjà liens yi am na ñu ma ko waxee mu doon dajale boo xam ne tamit dina doon un message pour nos militants parce que souvent Euh, militants yi dañoo comprendre lu bëri yenn militants yi pas ñëpp euh, il crée des confrontations factices virtuelles il érigent il érigent les gens en adversaires ou en ennemis politiques alors que loolu amu fi chaque fois mu wax ko ñun parcelle Pastef ñun Pastef on n'a qu'un seul adversaire un seul fii Sénégal et cet adversaire s'appelle Macky Sall et son régime amuñu beneen adversaire nekkuñu fii di guerroyer wala positionnement biir opposition no parce que politique bi terrain bi mi ngi nii ku nekk da ngay dem liggéey rek ku ne da ngay dem def li ngay def c'est les Sénégalais qui décident donc y a on n'a pas d'adversaire dans l'opposition xeexuñu kenn ci opposition loolu souvent dañ koy je perds même des messages léeg-léeg soo amee yenn wax yi en disant aux militants ñun on n'a pas de temps à perdre nous avons un seul adversaire une seule cible te notre tant xeexuñu ba mu jóge fi ba mu jóge fi parce que baaxul ci Sénégal gëm naa ni baaxul sax ci boppam tant loolu amut nous on ne peut pas perdre du temps ci ay débat entre opposants pour nous, toute l'opposition doit se concentrer sur ce même objectif, indépendamment maintenant des alliances beaucoup plus serrées qui peuvent exister, selon les convergences que les uns et les autres entretiennent. Et donc, j'en profite pour lancer ce message pour dire que Khalifa Salmi sama mag la du mënuñu nekk adversaire xamante nañu boobu ba léegi relation yu rafet lañu am di waxtaan mu may mu may xalaatal di ma xelal di ma même bi ma ko fekkee bi ma koy fekk rëbës avant élection yi il m'a donné beaucoup de suggestions ci li nga xam ne domaine am la muy expertise électorale te ma waxtaan ci bi ma ko seetee dañ cee waxtaan lu yàgg benn instant dama doon sax pour na pas le mettre jarul may forcé di dem defe naa Barthélemy mii mun na ma seede ba ci bës ba bi ma ko seetee li ma ko njëkk a wax dama ko ne grand visite bi visite euh, politique la certes parce que ku fi candidat ne bëgguma soutien Khalifa Sall da ngay wax lu la neex su ma sañoon mu soutenir ma te xam naa ni su ma souteniroon moom heure bi waxatuñu <laughs> du reproche nag de ma ne ko mais damay comprendre sa logique boo soutenir beneen candidat it te ngeen àndoon y yaa un an demi ci liste élection législative ñu jiital la def la tête de logique na je vraiment te mettre à l'aise mais quel que soit choix boo koo bëgg a soutenir et même soo décidé loolu soutenir kenn dama bëgg nga xam ne sama relation ak yow c'est pas une relation politique su may ñëw fii di la seet si c'est d'abord le petit frère c'est le frère euh, euh, c'est euh, l'être humain qui vient te rendre visite donc loolu je tenais à le clarifier ici que les gens cessent de penser que comme diw war na am ambition diw am na ambition donc c'est des adversaires ou des ennemis on est on a aucune adversité encore moins de l'inimité sama mag la jiituma ci politique am ci parcours boo xam ne amaguñu ko war a am ambition yu gën a kawe ci réew mi parce que ñu ko fi am tey amuñu jaar-jaaram peut-être wala ñi fi nekk sax toog fi ñu toog amul jaar-jaaram donc loolu mënul doon un facteur bu war a indi benn ñollu ñollu suñu diggante et je tiens à le ici di leen remercier bu baax a baax a baax di am kontaan ci ñëw bi Euh, ñaan yàlla euh, lii ngeen daj ci épreuve yëpp mu doon loo xam ne luy ubbi la rek lu gën a yaatu te gëm naa ni loolu dina am incha allah salaamualeykum wa rahmatullah voilà euh, merci président Ousmane euh, ce qu'on va faire on va juste prendre trois questions pour pour la presse juste trois questions s'il vous plaît vous pourquoi euh, on veut circonscrire et très précis avec votre permission bien entendu euh, j'insiste simplement pour que ngeen jàpp loolu bu baax Khalifa Ababacar Sall mag Ousmane Sonko la une des titres la une des titres très démo je dicte la une des titres très démocratiquement d'accord je précise que euh, ici également nous avons euh, Kadjoulou euh, Fadilou Keita et euh, Ousmane Cissé euh, qui viennent de nous rejoindre pour pour assister également à la rencontre donc on on permet ñu poser ñetti question pour ñoom ñaar ñu tontu ci Euh, ñu mën a yëkkati suñu séance. il va parler au nom des deux. ah te le droit de l'Est existe nag ba kii Afrique la moom kay yaay tontu la il parlera pour les deux. est-ce qu'il y a des questions sax est-ce que tu veux rek la. merci beaucoup la presse question. La presse n'a pas de questions? Non, ah, non, am na kenn ku war a am benn question waaw.

On n'a pas circonscrit, je suis désolé. Je, je, Mais je, bon, voudrais, je voudrais préciser une chose. Vraiment, je suis désolé, je ne répondrai pas à votre question. ah je crois que di nga ma ko baal du dëgg alors soo bëggee nag tontu ma bàyyi Cheikh Gueye tontu wala Idrissa Diallo si waaw ouais, mais je parlerai pas baal ma rek dégg nga merci beaucoup. journaliste de grand ba yow nga posé question après nga ne sénégalais wolof dafa nii <laughs> li duuf ci nag yëpp xajul ci très bien wolof boobu du wolof waaw nag bi lu mu duuf duuf xajul ci cin dañu war wax li duuf ci nag yëpp xajandoowul ci cin waaw dëgg li ñu fi indi tey tànk nemmeeku la waaw sargal ak saafon bien sûr nañu yem ci loolu ba yeneen jëm incha allah li ñu waroon wax yëpp wax nañu voilà